أعوذ بالله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 asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen balu xaq di ñaanal cheikh Mouhamadul Muntaqa sunu boroom yàggal ko fi te wéral ko ba lépp lu mu naalal lislaam màggale ko ànd ko njabootu cheikhul xadim gi ak mbooleem kilifa diine yi di nuyu kilifa yu baax yi nga xam ne ñoo nekk ci jataay bi di jël nuyoo yi ak ziar yi di ko teg ci loxo Cheikh ba Bachir Lo di ko ziara bu baax di ko ñaanal yàlla sunu boroom yàggal ko fi te weral ko jaarale ci moom nuyoo mbooleem njabootu Serigne maxtar Bintaloo di nuy kilifa yu baax yi mu feggool it bokk ak ñoom jataay bi te ni mu ko nettalee léegi ñoom it ñoo ngi leen di jox seen wàccuwaay bu baax a baax di leen ziyaara bu baax it di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan di nuyu soxna Bintu mi nga xam ne moo woote tey jataay ba mu solo bi di ko ci ndokkeel it di ko ci jaajëfal bu baax a baax di am mbégte ci jataay bi ndax kàddu yi ñu fi dégg jataayoo gi nu jataayoo ak Cheikh Abdoul Bachir doy na sëkk ci nun ab yóbbal doy na sëkk it tawfiq ci jataay bi kon noo ngi sant yàlla ci bokk gi nu bokk ci jataay bi li sëñ bi wax bi muy tàmbali rek loolu rek a mat a fekk ci béréb li mu ne man nga fee bañ a fekk mbooloo mu takku mu bari waaye fekk fi xol yu bëgg Sëriñ Tuuba damay faral di wax ne xawma la woy xawma li ci sama kanam waaye fii nu toll moom fu may dem te sëñ Tuubaay kese rek yóbbu moo fa perte naa ndax lu mu mën a doon nga di ko wuti man naa mu nekk fa yow waaye lii ñu dégg fii tey jar na paas jar na dugg avion jar na were kekk ay guddi ngir dégg ko ndax dana dolli suñu pas-pas nun lu nuy gën a namm di nu gën a xiirte ci sëñ bi di gën a dolli sunu kóolute loolu waxtu nekk moom la ñuy moom la ñuy xancu moom la ñuy wut kon noo ngi lay sant bu baax a baax loo di sant yàlla ci jataay bi bu baax di téye kóllëre gi it te ñaan yàlla fas yéene koo dox ndax am naa nun nooy ñi ko war a dox waaye danañ ci def suñu kemt lay kattan incha allah soxna Bintu loolu moonu moonu boole mooy bëgg sëriñ bi baax loolu lañu xam ci moom loolu it lañu woon xam na ne ay xat-xat yu metti ci la ñu nekk waaye teewul bis bi bi ñu ci waxtaanee ba daje ci bis bi amoon nañ pas-pas ak dogu fas yéene ko fekk si jataay bi doon ko ne yeneen yittee ngi nii xaar waaye pas-pas bu rëy bi mu am ak fi jamono toll defe naa ñu bari dana nu woote waaye bu ñuy wootee it mën nañoo bañ a wootee nii mu wootee te jataay boo xam dañ koy woote ngir jëmmi yàlla jëmm yonent bi jëmmi Serigne Touba loolu mooy jataayub texe mooy jataayub ngëneel jataayu fàttali ku way jurit di ko ñaanal du la am solo loolu nag kon jar na fekkee si jataay bi sëriñ Mahmoudan mi doon jàng léegi moom it di suñu wëlëre ni mu ko waxee yàlla boole nu bu yàgg mooy mu nekk ku baax loolu rek la ñu xam ci moom seere yëpp moom bu ci am solo rek mooy diw ak bëgg sëñ bi loolu moom defe na ku ku mën a lijjanti ba boo fi bàyyi ñu seereel la ko moo daq lépp ndax yu ci nekk mën naa bañ a leer waaye bëgg sëñ bi moom bu moom aw ñaas la woo xam ne mu nekkee ci yow rek day day ràññiku kon yàlla na ko yàlla defal ba mu nekk suñu seere ci waxtu nekk mooy ak a bëgg sëñ bi ak a yëpp ak bëgg sëñ bee ñu ci laqal yooyu noo ngi lay sant ci njàng mi ak taxawaay bi jataay bu am solo ngi nii boo xam ne ni ko soxna Bintu ta waxee léegi yéene yim ci am ak li tax mu woote ko lépp aw yiw la lépp nga ngëneel la sañ naa woote ci bu woote woon rek ne day sant maamam Sëriñ Maxtar Bintaloo doy na sëkk ndax ku yelloo ak cant la ku yelloo fàttaliku la ku yelloo waxtaane la defe naa sax boo ko dee gëstu ba gis ci dara lu mu néew néew dana tax sax nga gën a xam ne li sëñ Bachir wax léegi sëriñ yàlla dafa bari ay may te bari ñu may noonu la def mel ci ñi toppoon sëriñ bi kenn koo ci jël rek boo ko waxtaanee moom it wala boo gëstoo mbiram man nga jàpp ne sax bu fekkoon ne sëñ bi kuy jeexal la lam yor kooku rek la ko jox ndax rëyug may waaye nag kenn ku ne am na jagle ci moom kenn ku ne am na jagle ci sëriñ bi doon ko ne may yi bari na cër yi bari na yaatu na waaye kenn ku ne am na jagle boppam goo xam ne boo ko gëstoo ci sëriñ bi danga ko ci fekk sëriñ Maxtaar mi nag bokk na ca borom cër yu rëy yooyee bokk na ci borom jagle yu yaatu yooyee loolu nag li koy firndeel rek mooy sëriñ Touba ki mu doon ak cër bu rëy bi daje ci moom ak melo yu rëy yi mu am ku mu sedd ci boppam lenn li doy na sëkk ab cër doy na sëkk ak may doy na sëkk it ak jagle te loolu ku am te tawféex rekk moo mën a am loolu ku am ngëneel it moo mën a am loolu ku jagle it moo mën a am loolu kon lu ci nekk cër la bu rëy boo xam ne yàllaa koy jagle ko ko sopp yonent bi salaatu wasalaam waxoon ne sama saxaaba yi dañoo mel ni ay bidiw kenn koo ci roy ci ñoom gindeeku fii jamono toll contexte bi fii ñu toll yàlla na jaadu na aleykum salaam yàlla na jaadu na ci waxtu wu ne nuy delloosi si jëmm yu baax yu tedd yooyu nu yàlla baaxe di leen waxtaane di nafaraat seenu dund ngir mu mën a jàngal ndaw ñi fàttali mag ñi rawatina ci jamono boo xam ne day mel ni ñi nekk boroomi xam-xam ci yeneen i fànn ñu di leen tuddee boroomi xam-xam yëg nañu ne crise am na ci àdduna bi waaye ñoom crise yin gis dafay am ñoom ay cause yu ni jàpp ne moo koy sabab bu ñu ne crise alimentaire am na wala crise boo xam ne iqtisaadiye lay doon muy économique wala alamiya muy crise mondiale fekk na crise yooyu yëpp nag am na crise bu ko gën a doy waar te mooy azma xuluqiya mooy crise yu jikko li tax kook lislaam di wuuteeg ku lul kook lislaam waxtu wu ne nit dana jàng ci àdduna am ay orientation am lu mu gëm li tax muy wuuteeg kook diine nag mooy koog diine yàlla dafa sàkk ndaw wala mu sakk ay ndaw jël ay téere jox leen mujje lépp mujje ko ci kenn mu yonente bi alayhi salaatu salaam jël diine yi dugal ko ci diineem diineem muy islaam inna diina inda allahi jël téere yi tabbal ci biir bosam muy alquranul karim mu ne yonent bi mooy seen royteef kon jullit bi bu jógee di dund dundinu lislaam di roy bu xamee dëgg-dëggi boppam moom mooy kin war a topp mooy kin war a roy loolu la mag ñi doon dund li nga ciy misaal mooy mag ñi defe naa mag mu am milliard ah ci boo doon gëstu ci mag ñi toppoon Sëñ Tuubaa ñu borom yi barke la ñu woon waaye am milliard ci xaalis jafe woon na ci ñoom sagam amoon na ci waaye tund wuñ ma sa féete nag ñoo daan fa jiite yi boo seetloo mag moo waxtaane dañ lay wax ne waxuma la waaye chef de canton yëpp féete ca tund wa sax mag ñee daan faj seen i yitte di faj yittey jullit ña di faj yittey dëkkandoo yi te amuñu woon alali zahir kon barke lañu amoon la ko mayoon mooy bu guddee bu nit ña dee nelaw ñoom seen taalu jàngu baa ngay takk seen perkuus baa ngay dal ña ngay deeyaaleeg seen borom ba am barke buñ ñaanee yàlla mu am bi àdduna soppikoo nag ñu daw jëm ci kaafu lante alal bëgg lañ jëkk a def mooy fexe ba influencer nit ñi soppi leen ci pas-pas yu dëgër yi fi nekkoon ba nga xam ne da ngay gis ku bokk ci yoon wi sax sëñ bi defar maamam mu rus a nettali la maamam doon rus koo nettali complexe ci te li maamam jëf moom mënu koo jëf ndax li ci jiitu mooy sa maama tax ñu lay simil mbaxana kon defal na la sag boo mënut a fay doy na ci yow identification boo xam ne boo nee diw sëtub diw rek daal di bokk ñu xam la kon defal na la loo mënuloon boo complexé nag daw jëm ci àdduna sëñ Tuba daa amoon lu wax ci adduna dafa waxoon ne ida artumu najata min abuna i duniya fatrukuha ko loolu rek mooy solution fi ne na sëñ bi wax ak na si wax ak yooyu yëpp sëñ teeloon naa xam ne pëccoxoo dana am mu ne boo leen bëggee mucc ci ñooñ adduna bàyyee leen leen adduna ida aratumu najata min abuna i dunia fatrukuha lahum fa man wajada minkum fal yabdul wa man lam yujad fala yatlub boo leen bëggee mucc ci adduna bàyyee leen adduna ak waa adduna ku ko am na ko génne ca caase génne addunaam ku ko amul bu ko wuti léegi bu dee ki ko am da koy téye ki ko amul ñee ki ko am ba di ko wuti dana am lu mu jur sëriñ bi tegaat ci ne na ngeen moytandiku waaje waajtaayu seytaane mu ne seytaane nag waajtaaye mooy lu araam ak luñ sib ak lu lënt mu ne képp ku jël waajtaayu seytaane foo nekk dana la fekk kon dellu si ci mag ñi waxtaane leen roy seeni jikko moo niy sauvé moo niy dimbale it ndax ñoom réussir nañ ci lépp réussir nañ ci àdduna réussir nañ ëllëg seen digganteeg seen borom mat na leer na naññ te ku ne xam na ne àdduna li fi ab jaam di yitte woo ci muy sutura ak dund gu teey yàlla sunu borom defal na leen ko kon defe naa doy nañ sëkk ci ay delluwaay doy nañ sëkk ci royteef li ñu gor ci ay dëkkit defar ko ci aw nit defe naa ku dul ñoom dana jafe nga def lu mel noonu amub dëkk te doo sayku tarbiya sayku murabbi boo xam ne dangay yare di defare lu la nit ñi bëgg-bëgg ak lu ñu la déggal déggal ay caaxaan taxul ab dëkk taxaw diine it pas-pas bu dëgër moo koy sàmm kon sunu daje yu mel nii nañ ci fàttaliku mag ñi di leen waxtaane ndax ñoom niñ mel mooy ni sëñ bi mel ndax sëñ bee leen tàggat ba bëgg ba xam ne ni mu bëgg ku ni mel mel nañ ñi mu boyal leen sëriñ bi ci boppam moo jël ay jikkoom ak i meloom sotti ko ci ñum doon tàggat di leen yar di leen defar ba koo ci gis rek jonjoog moom la ngay jëkk a yëg mooy jëmmi sëñ bi ci boppam nga yëg ndax jikko ju rafet ja ja daje ci ñoom ak màndu ga nekk ci ñoom Serigne Makhtar Binta Lo mii nga xam ne xanniyun ani taarif defe naa loo ab nopp gàtt gàtt ab dégg dégg na turu Serigne Makhtar Binta Lo waaye boo ko déggee it ci lan nga koy dégg mooy bari xaas ci sëriñ bi ak taw tawfiq loolu moom tey ci bëccëg damay setantalaat di jàngaat di xoolaat mag ñi di xool sëñ Maxtaar ba yàgg ma ne ah sëñ Touba amul moroom daal ak sëñ Touba kenn laa sëñ nangam waxtu wu ne day gën a feeñ ci ñoñam ñii ndax démb dafa am ñu fa ñëw ñuy waxtaan ci kenn ci mag ñi toppoon sëñ Tuuba nga yéemu ca lool tey nga ñëwaat ne ci sëñ Maxtaar Bintaloo yéemu ca lool boo fa jógee woon dem Cheikh Isa Jenn kasaalika boo demoon Cheikh Mandumbe kasaalika kon li muy wone mooy mi sëñ bi ci boppa moo séddalikoo ci ñoom ñu yor jikkoy sëñ bi mu tàggat leen waaye nag lépp luy taxa a baax ña nga ca li kenn ci boroom xam-xam yi doon wax ne tayeel ak yaafus ak bari nelaw bu nga nee lu yàlla dee wàcc du wàcc foofu moom mag ñi nag sawaroon nañ foog nañ amoon nañ yitte ju rëy ba tax lu baax fu mu nekk ñu mën ko wuti ba mën koo am defe naa lu nit di seere ci nit nag mbind ci gën a wóor rawatina njabootam te sëriñ Maxtaar doy na sëkk ci xam-xamam ci ñi raw ci yoon wi ci la bokk waaye ku sëñ bi séddoo la woon it defe naa bi maam Cerno di gaaral Serigne Touba ñi mu ko bàyyee woon bi demee ci géej gi defe naa lim bu bari la man nga ne yoon wépp waaye Serigne Touba di sëñ Maxtaar Binte rek la jëlaat féetale ko ci boppam ngir mu jege ko ngir mu ne ci wetam loolu ak jagle la ci moom tawféex la ci moom dama gis sëñ Mat Lamin Jóob da ne di wax ne. doon na doy ci señ maxtar Binte de moom bu bu fekkoon ne amut lenn luñ koy nettali mooy doy na keroog bi sëñ Tuubaa liggéeyee ju tegee xeeru jumaay njaareem ji ba noppi yëkkati tureel bi jox ko sëñ Maxtaar Binte Lo moom ci biir kàmb gi sëñ bi doon tege xeer bi loolu sëñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana nee na doy na sëkk ci ab cër ci señ maxtar Binte ndax jumaa jooju sëñ Tuubaa moo ne mooy misbaaxu ahlus sama wa najaatu ahlul ard sëñ Tuubaa nee na waa asamaan lamp bi leen niital mooy jumaay njeereem jooju waaye texeeg waaye suuf mooy jumaay njeereem jooju te ñaata fere ñaata mbooloo ñoo fa nekkoon taw fee xam wax nañ ne sëñ Maxtaar bokk na ci taw fee xam léegi-léegi sëñ bi daana ko yittewoo wax ne ana ku toll foofu wool ma Maxtaar Binta bu boobaa moom lay doon sëñ Maxtaar Binta lay doon defe naa am na bis sëñ bi yónnee di ko woolu ka doon woo fekku ko fa ba mu ñëwee dafa def ay bayit ngir jéggalu sëñ bi ci ñàkk fekk ga waaye lam ko jural mooy njéggalu yàlla bu ko sëñ bi ñaanal faggul ko ko ci boromam loolu ay ciir la Mbakke. Mm-hmm. tawarkal noo ngi lay siyaar baax loo tawarkal loo noo ngi lay siyaare loo. Mm-hmm. Mm-hmm. ñëwee bi bi mu génnee rek soxna si daal ne ko ah bi day ku baax ki day yoon yoon yónnee na fi ñaar ndaw ñett mu ne ko nga ne lan solul ay daal dafa dafa samp xilam dawa dawa daw ba ak si groupe ne ko mbàkk omi soo ay suu mi kaana mi nii taxallufan fali sat bi ani dëhër bi saaka saa aw bi sëñ jox ko loxo ne ko maxtaar mu ne ko mbàkk mu ne ko lakkal yow ma xufraanun min al xaafiril ali fakkuntaa xam niil abri li saa aw Euh, ba ca des wari su laa doog wari su waaye euh, ginnaaw ci sëñ Maxtaar la ñuy wax sëñ Maxtaar moom yi ba sëñ Tuuba ñëwee ci géej gi maam maam maam Ceerno ne ko Mbàkke fere yi dee ngi ni Maxtaar Binta mi ci fere yi liggéey naa ko jàngaloo naa ko mooy bindal doogo yi moo leen moo leen di bu leen sas ci àll moo leen moo leen di jëkk mbooleem loo ma masoon a xam na foo mas jaaral ci aw bind war a satar fan ma fa jaaraloon jaaraloon naa ko fa bokk mën ko tawarkal macha allah cernu jëlal ñii te bàyyil ma fi maxtaar binte mii ci ci motali liggéey ba rek laay ñëwee yow ba mu amee ngërëm toog sëñ Tuubaa mu xëy si mu ne mu ne ko maxtaar mi mu ne ko mbàkk mu ne ko jéggi si fii nag te waxuma loo bëgg mu ne ko ndokk mbàkk genn bëgg la amoon moo taxoon ma ma ma ma gental ñoom rek bàyyi fa bokk ya bàyyi fa waajur ya bàyyi fa ñëpp sama sama bokk yooyee nag mbakke ba ma ñëw ci yow dañ dañ ne maxtaar binta toroxe na melo melokaanam rek naan juddoom bi rek naan amul lenn lu muy def lu naan day toppi moroomam di ko liggéeyal moom mu tëdd xanaa da koo gën a liggéey ndey sama sama mbokk yooyu doon wax loolu luy luy maxtaar luy maxtaar naar naar ñoom rek naar ñoom rek bokk bokk boo ci réew mii doo doo doo desee dara dégg nag mu mu ne ko loolu ci bëgg mu ne ko mbàkki Euh, euh, euh, ku ku jeexal rek ko jeexal rek foo mu jëm rek jàmm jàmm rek mu ne ko ah Maxtaar njàmm njàmm njàmbur na de <coughs> mu ne ko waaye Mbàkke sëñ Maxtaar ne ko waaye Mbàkke mën nga lépp mu nekk a ah mu ne ko tubaarkaal dama doon bëgg a tontu waaye sa borom tontul na ma nee na nee na naa naa nangu bisimilah nangul lu mu ko ci tegal mu ne ko Maxtaar mu ne ko Mbàkke dikkal dem ñoom rek boo boo demee nag bul dëkk ci biir dëkk ba ca nit ñooñee. demal ca wetu gànnaar ga lu lu ci juróomi far sax maanaam ay meetar nga dëkk dëkk fa te woote maxtaar koo woo mu ñëw ku ñëw nga woo nga digal ko mu mu mu def nga tere mu bàyyi maxtaar wàcc nga jëmu ja wàcc na màccees man suñ Tuubaa koo digal defut nga tere bawut maxtaar wàcc nga maag jëmu jaa ci des seen wërsëgu addina lu mu bari bari lu mu néew néew lu leen ci jox lekk leen ko man suñ Tuubaa maa leen ko bay sëñ Maxtaar ne ne te Maxtaar mu ne ko Mbàkke mu ne ko euh, euh, daanaa ko wax mag yi euh, Tijaan ñoom rek mu ne ko Maxtaar defal nañu ko ak ñi ci seen wàlla ñi ci seen wàlla ay hmm? booy Tijaan yi wax naa ko mag yi ñoom dañoo dañoo ree bay bëgg man leen sëñ Mansour ñoom ñi ak Alaaji Abdu ñi ngeen topp wërsëg dong lañ am di jëriñoo seen wërsëg yi man ma ne leen ay mag ngeen ma may wax leen ay wolof buñ noonu tey ji làmb jàng yi wala wala walla baa gi sëñ Tuba ngi ni alaaji Malick alaaji Malick day jóg taxataal sëñ Tuba ay loxo eh, sëñ bi jar nga ndax loolu la dana dana am mu ne ah loolu de moom daaw ba ne ko yëf yaa ngoog man man leen man leen nag sëñ waxtaar binte nag moom la sëñ Tuba def muy làmpam foofee dara du fa mel ne moom keneen du mel ne moom ba mukk loolu la yàlla dogal dégg nga daal ne sëñ daal ko ci tegoon nag maxtaar mu ne ko mbàkk mu ne ko maxtaar saw àjj eh, eh, àjjana moom la tax di wax de sëñ Tuba da nga fa am mbooy goo xam doo am koo ci dugal nun ñi nun ñi nag duñ ca bokk bu soobee yàlla ak mboy moom duñ ca dem moom xalaatuñ ko sax bi ci des bi ci des sëñ gànn sëñ xalifa ngi di suñ kilifa moo fi am lekk euh, mosuma koo euh, euh, mosuma koo mosuma koo dégg ci yoon ni yaakaar naa mosoo koo dégg dem barsàq ci mag ñi ñu indi indi ko sëñ Fallu ñoom rëcc yi ñeel dëkkam bi fanweeri kilomètre la dañ dañ ko yenu biñ ko andee sëñ Fallou ne ko sëñ Maxtaar Binte dama wàcc ma ne ah ma ah, ma ci fee de man man leen yóbbu ko ca borom baraag bi yóbbu leen ko ca borom baraag bi ci baraag bu sëñ bi ma ne ñu ñu ñu seen waxtaan mosoo ko dégg loolu yàlla yàlla dogal nag ci moom lii am du du du waxe kon kon kon sëñ la lam gañee Euh, ba muy jox mag ñi kër yi kër yi njaareem sëñ sëñ xalifa ngi euh, kër sëñ Tuubaa fi mu yem kon ma mu ne maxtaat bi nañ ko nañ ko jox fi mu dend ak man buntu la ko wutaloon sëñ Tuubaa danaan dem na ci kër ga sax fekku fa fekku fa ak yeneen yeneen waaye yooyu yëpp nag lañu sëñ moo Moussa Mbacke waxoon euh, maa ngi doomi sëñ Tuubaa waaye juba juba gën a juba moo gën a xaw ma defe naa noonu ko daa waxe jërë ngeen jëf Euh, jërëjëf loo loo ngi siyaare sëñ xalifa bu baax moom it di ko jox wàccuwaayam ñaan yàlla sunu borom mu yàggal ko te wéral ko ba naal yi mag ñi naaloon te yéene ko yëpp nu yàggale ko te ànd koog wér tal ak njaboot gi yëpp jërëjëf Cheikh Abdoul Bachir euh, waxtaan yu mel nii daa mat di waxtaane ngir ñu mën caa jariñu ndax day yeesal pas-pas rek day dolli pas-pasu nit te wax naa ne egg nañ foo xam ne ñu bari complexé nañ ci wax baaxu ñu baax ñii sëñ Tuubaa sax maayam yi dañ koy tëb léegeeka mas naa koo wax kenn ci bokk yi mu ne xar baax yi sëñ Tuubaa yi nii waxtaane ma ko yow mii rek de xar baax nga ndax noo sant mu ne mbakke rek nga simmi sa mbaxana demoo ci géej gi taalifoo téere yi kenn lijjantiwul diw mu ne mbakke rek mbaxana dañ nga sukk loolu de lu ko gën di xar baax bareegut ndax yow ki liggéey liggéey bi du yow te ku la gis jox la cërub boroom liggéey bi bu la gisoon fi la xar baax yem loolu kon jagleeg sëriñ bee kon jërëjëf kon loolu ñu doon leeral li ma ci jublu mooy sëñ Maxtaar maa ngi gis ci xaside gi nga xam ne sëriñ Mahmadun Lo doomam borom xam-xam bu bari bi te sàmm te baax yàlla na yàlla dolli ngëneelam dafa talxiis mboole jikko yi ñu doon waxtaanee yëpp mu wax xamal nu rek nga xam ne ci xamal gu leer jëmmi Serigne Makhtar Binta Lo ci xamalin woo xam ne nag lépp ak mat la ndax ba muy koy martial ba muy wax da ne kaana imaaman aaliman wa aamila wa zahidan wa kaamila mu ne nekkoon na imaam te mooy njiit nekk boroom xam-xam ak yi la boroom xam-xam làmboo lépp ne ko sëñ bi tekkee waaye borom kuy jëfe xam-xamam waaye ku sàmm ku dëdd adduna ku mat nag wa kaana aabidan wa muridan sadiqa li cheikhi siddiqan lahu muwafiqa nekkoon jaamukatub yàlla nekk murid sadiq nekk xaritub sëriñ bi waaye nekk ku déggoog moom te dëppoog sëriñ bi ci lépp lu mën a nekk di boole sharia ju leer nag ak xaqiqa te moo di shariatul muxtaari xata jàlla ba suma tariqatul junaydi sawaba kon mooy boole li sëñ Tuubaa naan ujaddidu shariatul mutahara wa xaqiqatul munawara dinaa yeesal sharia ak xaqiqa loolu la boole woon mooy ki nga xam ne it dafa boole woon tasawuf bu sell boole it sharia te kooko dañuy wax ne mooy ki gën a yell te gën a yeyoo ak topp kon ki mat a topp mooy day dajale eh, jikko yooyu dajale it melokaan yooyu bokk na ci it sëriñ Mbakke Bousso radiyallaahu taala anhu sëriñ Mbakke boroom xam-xam bu rëy boobu nga xam ne defe naa ñeneen ñi bokkul ci yoon wi sax am na ñu seere ne doy na ci nungul sëriñ bi rek jëmmi sëriñ Mbakke Bousso ci boppam. nga xam ne muftil balad dañ koy woyoo imaamul muridin ku ne xam-xam xamam sëñ Mbàkke Buso nee na sëñ Tuubaa moo defar suñuy xol defar suñuy jëm ba képp ci nun jàkk boo ca seen mun mu tax nekk ku mat wal xaws wal miqyaas rabba xulubana wa ajsaamana fal kullu saafin wa naim sëñ Mbàkke moomu Buso radiyallahu taala anhu daf ñuy jàngal sëñ bi li sëñ Bachir wax léegi rek sëriñ bi mag ñi ko doon dund noonu lañ ko xamee sëñ bakki nee na bari waa na guddi yooyu bu nit ñi nelaw sëñ Tuubaa ci al yi kër kër yi bu bët setee ba mu tàng lool ba nit ñi yitte woo naan sëñ bi day woor ba noppi jël ndox yu neex yi jox nit ñi ñu naan fa kam min layaalin baataxal xaw su taaliya ala suwari tartili wal kawnu naim kadaka ayaamu chaqana saatisaa wa yutamihu multasim wa huwa saimu li tax ma leeral ci loolu mooy borom xam-xam yi dañ bu ñuy wax addis diw jëlee nañ addis dañ naan diw borom addis bi mooy diw ak diw taxriifal ko ngir ngi xam ki wax ki doon moo tax li ma ci jublu mooy ki seere wax ci sëñ Maxtaar Bintaloo ki mu doon dimension bi mu am ginnaaw gars yi dañuy bañ menn mag te nee naa leen boo ne ibnu nangam rek na mag la xaw ma juno yi di ngay wax ne ibnu Malik xaw ma ko bëgg a tudd waaye menn mag la wala bàyyi diw saa yoo ne wuldu wala ibnu rek dugg nga ci bay diw ah. abal xaasim sax boo ko waxee yonente fe bàyyi diw la ndax mooy bàyyi xaasim xam naa damaa xamul ku ci jubloo dajji na waaye abal nangam moom bu dugg rek bàyyi diw dugg na euh, loolu nag li muy wane sëñ Mbacke Bousso da ne ko képp ku natt sa tedd nga ci tedd ngay gaa yu baax yi sang sa day mel ni ku jël lëndëmu kukk di ko natt ci jantu bëccëg ni jantu bëccëg gën a leer lëndëm lëndëm sëñ bu Bousso nee na noonu la sëñ Maxtaar Bintaloo gën a tedde ci kenn koo koy nattalee ka gam gam-gam leel te defe na sëñ Mbàkke di nee doy na koo xam ne dañ ne la bi fi sëñ bi jógee yaa ko taxaw doy lépp cër kon ci ak sàmmoog ak ragal yàlla man xaasa majdaka bil karaami faqul lahu ayu xaasu day juurul bi shamsi nahaari cantu bëccëg ku ko gam-gam leeg ak lëndëm dana dana dana ak lëndëmu kuk gu lëndëm kuk dana mel ni leeru bëccëg gi dana gën a ràññiku noonu la noonu la mel moom sëriñ Maxtaar Bintaloo mu ne ko yaa dundal xam-xam nag kon dundal na xam-xam te kañ na ko ci xam-xam ba nga mujj nag nekk ab jalluwaay nekk naanuwaay waaye ci yitte ju kawe ak xam gu xóot ak i teggin akuk dal akuk wegu yooyu la ko kañe moom sëriñ bu so kañ ko ci ak tabit ndax xamoon ak tabam waaye it yemu ca doon jaamu yàlla buy jaamu boroomam waaye it def ragal yàlla muy sa symbole wa jaxalta taqwallah xayru shaa xayra shaari nga xam ne nit ki des na ko mandargaale dara waaye sëñ Mbàkke bu sa nee na sëriñ Maxtaar Bintaloo shaaram symbole am mooy ragal yàlla moom lañ koy xàmmee moom lañ koy xamee mooy koo xam ne it ak rafet jikko la ñuy xam ci aw meloom ak doxinam kon loolu lenn la ci loo xam ne rek dañ ko doon ubbee ci moom di ko barkeeloo ci bisam bii bisu setam bii mu nekk koo xam ne it ku bokkaloon réew mi ci borom yi xam-xam ak bokk gi ñëpp xamoon wàcc wàccuwaayam xam cëram sëñ bi wax na ko léegi koo xam ne sëñ Touba daana joge ci këram googu dox ba fa bérébam loolu defe naa yombul koo xam ne nit dana def fa sa béréb juróomi weer wala juróom benn weer du la mën a gis yow ngay jóg dem di di ko fekk loolu beneen ngëneel la waaye nag la ko andi mooy ginnaaw yàllaa ko tànnal sëñ Maxtaar Binta yonente bi tànnal ko ko kon faw aw tànneef lay doon ci biir tànneef yi kon loolu ak jagle la goo xam ne yàlla defal na ko euh, Cheikh Maxtaar Bintaloo ci ak njàmbaar kon ak boo demoon gànnaar rek wala nga déglu gànnaar xam taxawaayu sëñ Maxtaar Binta Lo ndax gànnaar moom da nga boole am xam-xam man alxuraan am kattan na gannaar meloon waaye xoola ay jëfam moom sëñ Maxtaar demal ci yéen koo xam ne Serigne Touba defe naa sëñ Abdoulahi borom dër bi sëñ Maxtaar Binta la ko sëñ bi tuddloo jël tur wi bind ca Abdoul Laahi nga xam ne loolu li muy jàngale rek. mooy kon sëñ bi doyloo woon na ko ci boppam waaye doyloo woon na ko ci biir njabootam loolu defe naa yombul nag ah, te booba sëñ baa ngi ci yéen jolof sëñ Abdoulaye fa la feeñee waaye loolu nag muritam bu dëggal bii moom la ko jagleeloon li sëñ Bachirou Mbacké di wax ne euh, sëñ Makhtar Binta mooy koo xam ne doo ko gis wala nga gis leneen delluwaatoo ci lu may ak wéeru ci yàlla ak wakkiiru ak sàmm ak yitte juree ju kawe yoo xam ne moom la ñuy xam ci euh, sëriñ maxtar Binta Lo loolu it kon jagle la. te njabootam gépp ca la leen tàggat ca leen yar mu ne aw doxin woo xam ne ko ne xam na ko kon loolu bu soxna si wootee jataay bu mel nii am na lu muy jagleel am na lu muy tag lu muy tegtale jublu ca fàttali way juram di ko ci ñaanal te way jur am xaq ju rëy ci njabootam way juru jigéen it am cër bu rëy ci way juróom ci njabootam ndax jigéen ci boppam mooy kii nga xam ne boo xamee li mu représenté ak li mu doon mooy nekk ki gën ndax yonent bi alayhi salaatu salaam moo ne al mar'atu saaliha xayrun min alfu rajulin xayri saalih jenn jigéen ju baax moo gën junni góor yu sàggan te jigéen lislaam jox na ko dayee bopp boo delloo ca ginnaaw lu jëkk lislaam ci ngay xam ne jigéen mënta fay lislaam jigéen daawul amuk can jëkk lislaam daawul donn daawee su ko joxub cër lañ xamoon ci jigéen mooy bu juddoo ñu gas ko suun baa ñu doyee dal ko bañ ko taxaw defe naa lu ci nekk alxuraan indi ci aayat yu tegtale wàccuwaay bi ñu joxoon jigéen wa isa bushira ahadum bil unsa zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib ak yatawaara min al qawmi suu'i ma bushira bi kon lu ne jàngale na rek fi jigéen nekkoon bu njëkk ak li lislaam jox bi mu ñëwee bi lislaam ñëwee dafa teggi tooñ googu wane ne ci li ñu tudde humanité muy insaniya jigéen ak góor ñoo ca yem ndax ya ayyuha nnaas inna xalaqnaakum min dakarin wa unsa wa jaalnaakum shuuban wa qabail li taarrafu inna akramakum inda allah attaqaakum kon yàlla mi bind góor moo saxal ak bind jigéen waaye kon yamu ca yàlla du na jigéen dafa néew doole ba bu may fay góor laay fay du ma fay jigéen man amila saalihan min dakana unsa kon day mel ni day fay ku ni fayee góor lay faye jigéen dax ba muy jeexal wala najzihim ajrahum bi ahsani ma kaanu ya'maluun kon bu leen di fay ci la gën a mat gën a rafet la leen yàlla di fay jigéen kon taxawaay boobu muy amit ak jëf jooju bu ko xamee nga gis ne jigéen ak tabbi ci diineem ana sayyidatuna Khadija ana sayyidatuna Aïcha ana ana ay jigéen ñoo xam ne am nañ ay taxawaay yu ràññiku ci lislaam ba lislaam xam leen tey am yitte ju réyit nag ba tey seeni tur du far ci diine foo leen tudde rek lislaam delloo si leen am na boo demee ci jaami karamatul awliya bu yusuf ibn ismail nabahani da ci am ca xaajub ñaareel ba gis uzani ba am na ca arfu ayin ku ñuy wax urwatu saxra da cay nettali moom ana bahaani ne urwatu saxra jigéen ju baax la woon mu ne mës a gis góor lu may baayam kere bi mu amee borom kër borom kër bi teg ko dafa rus ba tiit ñaan yàlla faatu ci guddi gi urwatu saxra la tudd boo fa demee da nga fa fekk ñuy tuddee Fatimatu Naysaburi jigéen la woon joj dafa ne ci bés ab néegam ab sàcc ñëw bu sàcc bi jëlee bagage yi bu génnee bunt bi tëjee sàcc bi du mën a génn bu tegee bagage yi bunt bi ubbeeku mujj am kàddu gu nekk kooku dafa sàmm boppam sàmm digganteem ak boroomam ban sàmmal ko alalam te jigéen la boo demee ci jaami karaamatul awliya boobu ba tey da nga ci fekk ñu mel noonu waaye imaamul Ghazali dafa indi ci ihya ulumuddin ab nettali boo xam ne seen soxna su ma sa dajee ku ñuy wax saa nunul misri soxna su am fu mu jëm am jubluwaay mu laaj ko ne ko foo jëm foo jógee la ko wax sànnul misir dafa laaj soxna si foo ko jó foo jógee mu ne ko maa ngi jóge ci xawmun tatajaafaa junuubuhum anil madaaji' mu ne ko kon foo jëm mu ne ko maa ngi jëm ci xawmun lam tulhihim bay wala tijaara an dikrillah sànnul misir ne soxna si ñii nga ma wax ne ñoom nga jóge ak ñi nga jëm moo ma leen doon portaleel ñooy ñan ñii laa bëgg a xam soxna si ne ko xaw humumu humu billahi qad uliqat fama lahum himamun tasmu ila al ahadi fa matlabul qawm mawlahum wa sayyiduhum ya husna matlabihim lil wahidi samadi ma in tunazi'um dunya wala sharafun min al mata'ami bil ladati wal walad wala li lubtin thiyabin fa'iqin anaqin wala li ruhin sururin halla fil balad xoola jigéen ji jubluwaay bi mu am man daal ña ma jëm mooy ñoo xam ne ngërëmul yàlla rek seen yitte par rapport ak am na alal ak lu muy def ak lu muy liggéey ak fu mu nangam ak nangam ak nga xam ne jigéen ñu bari jaay nañ seen juddu ak ñàkk xam seen bopp kenn kilifa gu baax daan wax ne mooy yàlla baaxut kilifa gu baax la daa wax ne mooy yàlla baaxut bu mënta ñàkk boo koy def def ko soob nawle bu weere boppam weer la <laughs> waaye waaye ku mën a génn génn boppam image na dajji ne diw mi ànd nag man nangami yoon wala daje na nangami yoon yaa daje kudu dul sab nawle rek loolu nag moo ëpp ci xoo jigéen ñu bari léegi luxe matériel lañ xool moo tax alxuraan waxoon na wa yuridu ladina yattabi'una shahawat an tamilu maylan azima léegi nag kaaf gaa ngi noonu moom lañuy surxal pour daaneel ca nit ñi surxal leen ci jigéen ju baax kon ci ab dayo ak doxin ak jëf ju mat doo soree ci foofa nga dellu si ba ci man nga tudd soxna jaaratullahi ma bu Bousso gàttu fan ci zahir te rey jëf defe naa 1833 ba mil 1866 fanweeri at ak ñett képp la waaye ay jëfam ba suñ bi bisub tey bii bu ñu koy waxtaane da jàpp ne kee ma nga poroxaan boo demee fekku fa ma nga ca kër Serigne Mbacké Mor Anta Sali waaye lan moo nekkoon ay jikkoom wan doxin la am jikko yooyu bët bu set nga dégg sopp maam jaara bëgg soxna jaara di ko dund waaye ndax danga roy ay melom wala nga roy ay doxinam ta dañuy wax ne même nit ki bu ne bëgg naa sëñ bi bëgg sëñ Tuuba mooy lan bu ne bëgg naa ko mooy rafetu topp ci jeexintali sëriñ bi mooy dëggal bëggug sëriñ bi bëggug taalibe bi sëriñ bi kon jigéen am na royteef fanweer at ak ñett nga mokkal alxuraan am xam-xam liggéey sa kër kala yàlla booleel ba am ngërëm sëriñ Basiiru Mbakke nee na ci minanul baqil xadim soxna jaara day jigéen ju sell la woon ju fegu la woon ju sàmm la woon kook diine la woon ku daan topp boroomam la waaye ku topp ab sangam ko ko yàlla booleelu sëñ Mbàkke Mor Anta Sali daan yaru njabootam ci mbañum rus ak laab ak diine daan na bari na lu daan nettali njabootam naan leen bokk na ci melegaay yu baax yi taxaw guddi sëñ Bachiru nee na loolu la sëñ bi teel a dégg ba bu timis guddi ma saa jot sëñ bi lay taxaw ba fajar te booba dalagul jàng mun a xool a gii nga gu rafet kon day mel ni wax ci soxna si doon wax bu doon ku ñuy tërbiyee benu tàggatu sëñ bi ci soxna si lay bàyyi ko nga xam ne wa kaanat rabbi awlaadaha ala muruati wa taharuba diin wa kasiran ma taxki alayhim xikayat salihin wa taqul lahum mi da bi salihin xiyaamu xool xoola joo jigéen ni muy tàggate njabootam ak léegi lan la ñuy jàngal ndaw ñi boo ne junne rek tàccoog fecc ngay jëkk a jàng bu dee looy jànge wax aw saaga lay doon te day neex sa ndey ba noppi neex sa baay ndax doom ji da koy def nga ne ko bu sa baay wàccee nga defal ko bu ñëwee bu ne defal ko yow yaa naan ko defal ma neexal la éducation boobu nag. bu ko dikki ki ñàkkee ci ab fondement fan lay jëm kon ku baax jigéen ju baax mooy tàggat njabootam moo tax ñu ne ku la gën aw jigéen gën la aw ndaw moo lay gën am réew te léegi xoola gone ak jigéen ban wàccuwaay lañ leen lañ leen jox te koo dégg mu ne liggéeyum ndey amut léegi-léeg ma gis ci télé bi ko naan gawuma liggéeyum ndey wax na dëgg de amut daal la kenn du wax bu la neexee na bañ nga ko mën nga ko bañ a gëm waaye ñu seeni ndey liggéey moom xam nañ ne liggéeyum ndey am na doom ju fexe ba sa bàyyi na la gërëm naa sa yaay yow da nga xam ba xam yow lu xew ku fexe ba sa bàyyi na la góor góorgóorlul gërëm naa sa yaay te mu wér yow yaay yëgal sa bopp yow mii gërëm nañ sa way jur dana tax boo sa loxo gàttee boo yóotoo mu jot boo njooloo jot ku la raw boo jógee jot ko te ku gasal i pexe day gas kàmb gi ba noppi di Hissien fii la tollu fa daanu ca borom day ju liggéey da gas ba noppi kamb gi ñuy xool fu mu toog nga naan da nga bu jaaree wet gi wala wet yow mi ko doon gas yaa nañ ci kamb gi jigéen am na melokaan wu ko war ci jëf ak tolluwaay yonent bi alayhi salatu salaam nee na ida sallatil maratu xamsaha wa saamat sahraha wa xafisa farjaha wa ataat zawjaha min ay baabin shaat min abwaabil janna jigéen bu wooree kooram julli julleem def ay farataam sàmm pëyam topp boroom këram bu faatoo dañ naan ko xoolal bunti àjjana yi bu la neex dugg ci nga gis ko taxaw fee ne kenn mënta yóbbu kenn fen yooyu yëpp ay détail la jigéen tontu boroom këram boroom këram mer rek des na ci mabbu jëfam juróom-ñaar fukki at demal ci wasiyatu niswaan sëñ Moussa ko wax na ko defe naa boo demee ci duratu naas ab hadis la boo xam ne sax tege nañ ko ci jigéen ju merloob sëriñam ci làmmiñam fekk mer ma siixut yàlla màbbu nay jëfam diirub juróom-ñaar fukki lum jaamu yàlla du nangu loola dee ko raam jigéen ju dem te tagguwul borom këram lum jaamu jaamu yàlla duutu ko gërëm damaa gis kuy tàggu borom borom këram tey lu xoromu na ko dama bëgg def nangam fekk da koy bàpp ama jigéen ñi ñooy yeewu daa am lum ko bëgg mu jox ko ko mu di ko bàpp na ko damay tàggoo dama nangam waaj na ko mënuma ko te bul dem nag mu ne ko nag maa mën a tee dem nag maa moom te gis nga ni mu doon tàggoo kenn ki moom dana soxna si bul génn di tàggoo mu ne ko yow lu tax ngay dem di tàggoo xoolal wowu melokaan lu tax ngay dem te tàgguwoo ma hmm? te jigéen buy dem war naa tàggoo lii sëñ Tuubaa doon dénk soxna Penda Diop wala tarumi taatallahi bila taati zawjika taqidin la xool fa mu ko tàmbalee alayka bi sabri wa taqwa rabbik fi sirri wa jahri fa yaxfir lak maa ngi lay dénk ragal yàlla ragal yàlla baax na ci ku ne mais ci jigéen la raw gis ngeen adduna nar naa takk ngir jigéen bari na gor yoo xam ne tilim nañ te mënatuñoo set te jigéen a ko waral te lépp ay pexe ak i kalan ak i xalaat képp lay nekk ak adduna te jigéen mooy nday lu waay baax baax fi ne sëñ Maxtaar Bintaloo mii nga doon wax booy eggal rek tudd way juróom boo ne Cheikhul Khadim tudd way juróom lu nit baax baax lu mu rëy rëy ab cër jigéen nekk way juróom jigéen loolu doy na ko ci tàdd nga waaye ñu jël jigéen def ko fiir kun bëgg a daaneel ci lañ lay jaare xool adduna bi ni mu jaxasoo léegi koo dégguñu ne yor naa sa vidéo yor naa sa nangam yor naa sa nangam bu ñuy xeex nit léegi xeexeetuñ ko ci dara lu muy jigéen jigéen lañ jël léegi jigéen la ñuy peese jigéen la ñuy jël waajal ko yabal ko ci béréb ngir mu daaneel nitu yàlla wala mu daaneel nit ku baax léegi jigéen lañ def programme boobu dama laa sopp sama nangam damay jébbulu sab taalibe la ndaka yow lay kiriyal boo dee ak naata xoon yi koo xam ne nag ku ne alu nga ne alu ah nga ne sërëx ci loo mënta lijjantati ñu taxaw ne nga xëy doo am lu mooy rek ñu ne la fang wala ñu santas la fi ne bari na ñu ñàkk seen xorriya la ba may jàng 92 nu suusul adabi ama sa dégg koy wax naan fa ka ma fii ka misli xalbaani abdun wa xor hada yarumu firaran min ta walay sama far ku mënoon a mokkal laa 92 dama arabe woon dama jàppoon ne ay man maa ngi gëmoon ay Hafiz Ibrahima ay Ilyal Abul Madi Moustapha Lutfil Manfaluti ay Ahmadou Chawqi ñooñu la gëmoon nga xam dama daan tari seen way rajaxtu li nafsi fataxatu xasaati wa naadaytu qawmi faxtasabtu xayaati ramawni bi xoq mi fi shibaabi walaytani aqimtu walam ajzan li xawli hudaati xafis ibrahima wala ilyal abul maadi taxamun kullaha hayaatun ak wa dafini ala baqaya dafini daxikum tasahumi addaadi yooyu laa mënoon 92 laa ko mokkaloon bi ma waaye yiñ lay jàngal mooy dafay mel ni ki ne yow léegi amatuloo liberté kidnappé la ñu jël jigéen def ko loolu ndax jigéen war na nangu kon jigéen aku melokaanam loolu nag euh, xam ngi ko nit ki di xam ak jëf ji koy xame loo gën a jëm ci bax ana rabiatul adawi ban cër la amoon egg na ci di ñaan ñi ñaanal di gis kayit yuy wàcc yu bind xat faxal na darika wala day na mazid adduna léegi tooñ rek te tooñ ci go jàmborob yàlla bu toog nga di ko kiriyal ndake nit ki boo ko tooñee yow yaa ngi nelaw de waaye moom mi nga mi nga tooñ bu la ñaanee yàlla dana nangu ndax moom yàlla nelawut defe naa loolu it mas naa koo gis ci ahmadou shawqi laa taslimanna ahadan ida ma kunta muqtadira fa zulma axiru yatika bi nadam tanaamu aynaka walmazlumu muntabihu yaddu alayka wa inda lam tanam ba ca topp mooy gàttu tànk ci jigéen ak xam li ngay roy bokk yi soxna jaaratulahi maam Mariama Buso daana rabbulu ay sir bu génnee ku mu ko jox danaan soxna Anta Ndiaye la ko jox bu soxna Anta Ndiaye ñëwee ku mu dajeel mu ne ko mariyama mu ne ko Mbàkke yéeree rafet na de ne soxna Anta yéeree rafet na de mooy loolu de Mariama Bousso waaye lan moo nekkoon ay jikkoom lahal alaamatu la yaxfa ala ahadin sawmun salaatun duaun suma istixfaara sabrun xayaaun wa axlaaqun muhadabatun tibul kalaami wa ma bil xawli migdaara soxna ami Lo bi mu génnee adduna ku doon nampal Cheikh Mahmoud Lamine Baara soxna aw Bousso boole ko soxna ma Kunta déggoo fii ci réew mi jël sa doom yi wujj peccal ga na ko daq ren maa ngi wàcc yàlla ne démb dama yenn lu jooy ba ngoon jot ndax ki doon nettali mi nettali ne xale bi bi mu naan ko tànt baal ma ak lu ma la barke si Amadou Bam dama am xale bu tolloog noonu ku ma tuddee si Abdou Samad dafa toll noonu te maa ngi xool image bi même tey damay añ bi ak mbay sama kudd lan la nit am boobu xol te dégg ngeen fi bu yàggu nit jël asib sotti ci bëti doom yi wu jëm ana lu xew léegi ci jigéen ñeeg lu leen dal te moo ne day doom da ngay weer xamoo kuy weri ana sama ndey musul sama barke man te du man dong bare na ñooñ tey yeneen ni ndey lañ dëkkal ci seeni tabax di leen yóbbu makka di leen defal lépp doom juy mat xamoo kum doon waaye bu sa doom yi wujju duggee sa néeg sax nga fi xale yi dangay gis koo yónni ci néeg tàntam demal sa tànt mu ne damay génne wala damay def nangam bu ëllëgee nag bu nday jafaatoo kooko tekki li ñuy nettali koo xam ne dafa romb ay armeel ci putu jigéen ji am ku ne ko eh, yow armeel yi nit ñi tëdd mu ne ko sama wuj defee ne nga xam ne lim jàpp moom da koo jàpp ba jàpp na ne ki ci armeel yi sax da ko war a ñiñ ñi waale ngir ci putu te loolu def nañ ko ci bopp nit ñi mais booleen leen seetloo at yi yëpp njomme woo dégg jigéen ko fi def ñoo bëgg a taar réew mi ñoo fi rendee ñoo fi rey seeni borom kër ñoo fi def seeni wujju nangam taal nit lépp jigéen ñi def nañ ko fi am ci dëkk boobu ku mel ni soxna jaaratullahi maam Mariam Bousso am ci dëkk boobu ñu mel ñu mel ñu mel nangam ñu baax ñoo mën a roy kon ku yor sa njaboot teel ko tàggat yar ko ci baax bañ koo yar ci rankiñe ak ku fiiraange ak jikko ju baaxul même xale yi ci kër gi sax da gis ñoo xam ne dañuy tàggat kii woon la ci boo doon werib sir sax ba gis sa biir sirub da ko fay romb bu doon taw ngay weri ci ligne gi da nga naan boobu tàntaa ko moom ana jooju jikko ju ja ju jag ana jooju jikko ju baax kon jigéen lu mu góorgóorlu doyut ndax dañ koy nettali ëllëg rek dañ koy waxtaane ëpp na nag ëpp na ëpp na ëpp na ëpp na lool kenn xamatul li xew kenn ku suuf fit dalati amul ndax est-ce que góor ñi duñ yàgg ci ku mun amul dooley wut kër fee wut kër fee ndax da nga takkati soxna tey nag boo wutee kër wut kër fee it nag luy xew sa njaboot duñ xamante sa njaboot duñ laale doonan tey noon këru murit bu njëkk lu daan xew doo xam ne doomi kenn ndékkee ndoo nangam gis nga barke bi ni mu gënoon a yaatoo léegi ku yeewoo ak sa kopp ñenn ñooy xel ji seen bopp gàddu ko ana bokk sukkandoo ana bokk ndàngam coowalo boobu barke fan la jógee ci léegi ku ne beru ci tubaab fi ne même boo demee sa kër sax laq nga ci wet goy wutug taabal pour di ñoddi kooka xoolal ñi mag ñi doon dunde seen barke yi ak seen melo yi ak seen jikko yu rafet yi kon maa ngi leen di balwaq soxna Bintu di jégalu bu baax xam naa yéene la ñuy feeñal rek yitte yi bari na ci man maa ngi door a gi soxna Bintu Njaay Baay Fall moom it moom Cheikh Moustapha Fall moom sëñ Modou Aminte ku baax moom it soxna su yiw koo xam ne 2003 bi Lamp Fall di ubbi ba léegi ñoo ngi xamante ay melo yi rek lañ xam ci moom yiw ak dal ak bëgg lu baax di sëtub Cheikh Daaru Assane Ndiaye waaye mu jaay lépp jënde ko ak taalibe 2003 ak léegi benn at defe naa moo ko manqué ñaar fukki loolu lee mu yàgg te nii rek lañ xam ci moom yiw ci kaddu yiw ci doxin njaay noo ngi lay siyaare bu baax maa ngi balu ak ñëpp sëñ Basiiru noo ngi lay sant bu baax dolliku nañ ci jataay bi bu baax sant nañ it bu baax soxna si taxawaay bi it qualité ak quantité bokkul qualité ak xotti pot ay bagage la waaye du matériel loolu mooy nit mën na dajale mbooloo mu bari mais qualité ak quantité bokkul yow nag macha allah ñi fi daje. ay nit yi quantité lañ ay qualité lañ sëñ Basiiru mu toog jataay bi rek yoon na sëkk jaroon na loo ñu bàyyi suñu yite ñëw fekkee si moo tax lañ ci ànd ak fierté ak xol bu sel ak bu leer ci ànd ak yow jataay bi noo ngi lay jaajëfal noo ngi lay sant euh, di ñaan yàlla suñu borom mu gën laa jàppale euh, gën laa dëgëral dama mu ngi xaw ma ku doon wax naan ku bëgg sëñ Basiiru waaye fi ne moom daa day danaan bu la wooyee danaan la man la soxna Bintu Lo maanaam ku bëgg baayam la man la soxna Bintuloo Bachir man ah, waaye nag baay bu mel nii ku ko am war koo bëgg hmm? man de bëgg naa ko wax dëgg yàlla tey dolliwaat na ma lool sant naa looli nag danaa fi ñëwaat si seet man mag ñu mel ni ñoo ma arrangé man ñiy wiiraase ka golgolal moom arrangé wun man ki wax li sëñ bi def ak ni mel kooku moom a te mag mu toll nii sëñ Maxtaar Bintaloo di mu toog fii li muy nettali wax dëgg yàlla man moom sama xol. sedd na ndax man dama bëgg lu ma gën a jëm ci kaw kanam rek di gën a gën a sakk ci sëñ bi rek muy doon sëñ bi donc loolu nag ñu mel ni yéen ñu ci mën a dëgëral ndax léegi lu waaye wax ci réew mi ñu ne nangam maa ngi koy wax bis rek am ku ne même sax ki ma dégg ma koy da cee insister ne sëñ bi lu mu wax wala lu mu def da ko bind ah kon de waroon na ñoo won fi mu bind bu Cheikh Rafal julli te ku dee nga julli Cheikh Rafal dem sawar nim def ba ñuy sukkal diw ak a raamal barke ba di ko topp loolu bu doon ku ko lu ñuy bindil ku ko mën bindal ko sa kok bu doon lu ñuy doon let ku ko mën doonal ko sa kok wetti ngërëmul yàllaa ko doon maye te kenn mënu ko dakkal lu mujj ci ba àdduna doon jeexit bu fi sëñ maxtaarul bintaloo bàyyi woon ak ëkk ëkk googu barke lay àndal ba faw ndax waa barakat yi waasiatun wa baaqiya baqaa umul ko siyi bati safi jënd ba mu jar la kenn mënu ko soppi kenn mënu koo dindi loolu na ku ko amut mooy mooy mooy jéem a dagg mbedd yeeka wut fu fu muy kër waaw jërëjëf jërëjëf jërëjëf loo jërëjëf sëñ Mahamadan mi moom jokkoo nañ lu yàgg te xaw ma léegi laay door a ràññee moom it ku dal am yitte dama daan wax naan bu ñu waxee ma ne leen sëñ Maxtaar Binta daal bala ma cee wax bind nañ ma ko indil rek balla ma ca ngay Mbakke soxna maam Jaara Mbakke jërë ngeen jëf noo ngi leen di siyaare balla ma ca ngay Mbakke sëñ Ibra ab sëtu jërëjëf noo ngi leen di siyaare yéen it bu baax di leen jox seen wàccuwaay ñaan yàlla suñu borom mu yàggal leen te wéral leen waaw noo bokk daarul moxti sëñ sëñ koso sëñ koso Abdourahman mas naa ko fa fekk noo ngi leen ku baax te te bëgg diine sama soppe la moom noo ngi noo ngi sant bu baax a baax ah sëñ koso waaw moom daa baax moom daa baax lool waaye nag cant gi ni ma koy waxee jamono ju nekk rek njabootu sëñ Maxtaar Binta gépp gépp gépp gépp rek nag kenn fu ci waay mën a nekk ci gox yu fasantikoo yi ci réew mi ak biti réew nanga xam ne ci cant gi yaa ngi ci biir sant gi may sant sant naa ci ñépp amalu ko xejj nag amalu ko seen waaye nag di ñaanal sama woy jur wi nga xam ne li may koy waxee jamono ju nekk rek mooy baayoo dafa metti boo toogee diirum ñaar fukki at ñett ne woo yaay mu ne ah te ba muy dem ngay tuut tànk te ñim fi bàyyi yaa ci mag yaakaar naa tax dund nga metti muy bàyyi boo xam ne nag euh, yaakaar naa ñun mënuñu koo fay ndax ni ma ko waxee sànq rek mooy baayo dafa metti geesu gisoo yaay bët yu lëndëm yi ci baayo ku ko xamoon bët yu lëndëm ak xol bu naqari bi ci baayo képp ku ko dundul wala nga dund ko te yàlla may la wayjur bu baax bu mel ne suñu wayjur wii Cheikh Mahamadul Bachir ibnu Sëriñ Mahmoudan Maxtaar Binta dana xaw a woyof ci yow donte ñàkk ndey metti na ñi amul waajur wu mel ne moom yàlla na leen suñu borom wëlbatil seen waajur wi ñu dese mu mel ne moom ñi ko amit ñu yàggale fi lool ci bark Serigne Bassirou sant nañ ko bu baax a baax fépp fu nu waajur war a fekk féete rek féete nañu fa taxawu nañu yërëm nañu yiir nañu fe bu fekkee ne daal dëgg rek la yàlla bëgg ñun ñoo ku amul wenn naqar ci waajur wu la woon ginnaaw dem. ñoo yem loolu nag jëmmam yi nga xamante ne suñu borom a ko baaxal moo ko moo ko defee noonu di sant njabootu sëñ maxtaar bintaloo gépp di am mbégte lool ci toogaayu baay xalifa sëñ xalifa loo moom sëñ ma moom sëñ madloo maxtaar sëñ maxtaar binta mi fi toog ndax toogaayam bi kat kawe na lool ci noonu ndax mooy sunu xalifa wayjur wi nga xam ne amuñu lu may moom di sant itam baay seexu naa loo mi ngi ni toog di doomi sëñ amidun moom sëñ maxtaar bintaloo ah, baay abdoulahad loo doomi sëñ mahmoudan bokk ak sama baay wenn wayjur ak sëriñ Saaliwu Lo léegi la wàcce sëriñ Abdou Salaam moom suñu xalifa moom tamit sëriñ Mahmadan Mbacke moom it ma nga ne toog ab sëriñ Abdou Lahad Lo ak euh, Moustapha ñoom ñoom ñëpp rek sant nañ leen ñëpp gërëm leen waa kër Baye maxtaar Makhtar Lo njaboot ñu bokk sëriñ maxtaar Binta ak sëriñ Cheikh Abdou Lo moom sa Baye Cheikh Baye Cheikh Makhtar Lo ak sëriñ Abdou Jamil moom suñu Cheikhouna moom suñu Makhtar Binta ñoom ñëpp a ngi fi kon ak Mourtala Lo moom Baye Cheikh Makhtar Lo moom euh, Baye Cheikh maxtar ñun ñëpp nu bokk sëñ Mahmadan kon euh, man mënumaa fay njabootu sëñ Makhtar Binta su ma jógee ci ñoom ñi nga xam ne ñooy góor ñi itam njabootu sëñ Makhtar Binta gi li ko tàmbalee ca euh, kër sëñ Abdou Salaam ba ci kër sëñ Khalifa kër Baye Cheikh Gaynde kër Baye Xaadim kër yëpp bu ma limee damay juum waaye buntu kër yi nga xam ne ñoo bokk ubbee ci pencum sëñ maxtar mi mënuma leen a fay gërëm naa ñëpp sant ñëpp. bàjjan astu mi nga xam ne itam mooy taawub sëriñ mahmadan bu jigéen bokk suñu wayjur wi sëñ mahmudan moom it démb ba tey macha allah ñun ak moom ak bàjjan xaar mi nga xam njab moom sëñ mahmudan njabootuk sëñ maxtaar bintaloo gépp ngi ci sama wet sëñ gaan na boo gisee lii mënu ma ko cee ñàkk a tàbbal moo na maa woote baas bi fees waaye man yàlla damaa bindewut sàmba àllaar baas bi mënoon naa fees lool ñu takk or ba xonq cooy di baatare ay këyit waaye nun njabootu suñu maxtaar binta danoo doxut ci loolu ndax nun Euh, suñ borom daf noo dimbalee li a weñ nga dafa bañee ca mbànjaxaan nga ñun gaa yu baax yëpp bañ daje ci sëñ Touba ñi di ko ñaan alali àddina ñun suñu maam sëñ Maxtaar Binta daf ne woon sëñ Touba sama njaboot bu ñu am benn dërëm mu ne ko lu tax mu bañ ëllëg yow ma xiyaam ñuy doonu fekk ci lenn àddina loolee sëñ Maxtaar ko ñaanal daa rek la mënu gàddul it yaakaar naa mënu gën ndax kenn ci ñun mënu koo liggéey muy àjjana ëllëg ak teraanga àddina kon ñu ngi sant yàlla bu baax bi nga xam ne saa boo gessoo rek yaa ngi jaboot sëñ maxtaar kenn tardewul gone yaa ngi nii jigéen ñeeg ñëpp ak sunuy soxnay baay yi nga xam ne ñoom lañ bokk nekkal ci kër gi yaa ki na jaañ yaa màggat ñaan yaa soxna ñaan ñoom ñoom ñëpp ngi fi yaa bu sa jeg ñoom ba ñoom yaa may gay ak bàjjen joobu baay talaa ñoom ñëpp a ngi nii toog baaj ba ci bàjjen mayum sëñ seexu naa loolu sëñ maxtaar binta ñëpp a toog bintiloo sit ñaan ak ñoom ak ñëpp ngi nii ñi ñu bokkal njabootu sëñ maxtaar binta loolu sëñ gaan na dafa neex nit bu fekkee dangaa woote gestu gis say bokk du sama mbaax du sama jikko ndax ku xooloon ci man yaakaar naa ñetti nit mën nañ fee bañ a daje bu loolu jaalee nag bi ma génnee kër sëñ Maxtaar Binta yaa yaa ko wax léegi soxna Bintu Jaay Baay Faal moom it muy kenn koo xamante ne bii suñu diggante euh, yéeme na ak soxna maam Jaara Mbàkkeem sëñ Elaaji Baare mi sama wet ak soxna Maay Mbàkkeem sëñ Ibrahima moom sëñ Modou Moustapha ak soxna Faat Mata Baaji mii di sama wóllëre di sama xarit sant nañ ñëpp ak ñi nga xam ne ñoo koo ba ngumba ñi koo ba ba ay dajoo ba nga ne di sa wóolare wa sëñ Gana yaakaar naa daan naa la woo di la ko jox mu daan ma wax taal ma connexion bi te indil ma sëñ gaana yow rek la daan diglu muy sëñ Ablaye Diop ma ci àjjanay nelaw yar na yàlla seral ay yaxam nga xam ne euh, tabarkàlla euh, njabootam gaa nga ne démb la ñoom ñëpp ñu gonte koo ba ñëw ab taawam ak ña topp ci ginnaawam ñëpp mënu leen a fay waa ngumbaak ñëpp a ngi fi macha allah ak taalibé sëriñ Basiru yi nga xam ne ak taalibé sëriñ Mahmadan yi nga xam ne ak taalibé sëriñ Maxtaar Binta yi nga xam ne kenn néewul ci gi kër laa bokk ñëpp rek sëñ Maxtaar Binta lañ ñu toppee ñëpp ñu sant nañ leen gërëm leen waaye yow sëñ Gana sa cantoog bopp dama la koy beral ndax yow dangaa nekk nit koo xam ne li tax nu mën a xaritoo maak yow mooy da nga du nituk àdduna teraa ngay àdduna ji nga yor sëñ Touba moo la ko force jox la ko waaye wuti woo ko ndax ko woon wuti da ngay xëy di wàcc yow da ngay waxtaane sëñ Touba rek sëñ Tuubaa di la wan boppam waaye bëgg àddina ak mbuuxum àddina ak pëñaxtitum àddina taxulaa am sa teraanga ji waaye sëñ Tuubaa la for sa teraanga di la wane ci ñi ko waroon a mel ne yow ci moom te meluñu ne yow ci moom loole la sëñ Tuubaa di wane yàlla def na nga ku bëgg sëriñ Touba baax lool nag ngay sama wëllëre woo xamante ne bi yàlla rek moo nu boole ak sëriñ Touba ndax na ñoo xam ne bu ñu xasee ba siiw amu tur woo leen téléphone jot leen doo nga munoo ko am dañuy te yow maanaam sama sa su ma la woo moo la ne wooyu jotuma la sax da ngay daal di jël crédit bu mat daal di may woo jël sa temps waxtaan ak man barke sëñ Basiru loolu dañ koy bàyyi xel baax gis nga ki siiw day faatu ci suuf rek lay mujj ki kenn déggut kenn xamu ko day faatu ci suuf dong lay mujj waaye sëñ Gana barke sëñ Basiru waxtu wu nekk dañuy déggante di waxtaan te waxtaan wi yépp nag du génn yàlla yonent bi ak Sëriñ Tuubaa ak ak ak ak ak ñu baax ñi loolu mooy sunu waxtaan nag de bu nag ne fekkoon euh, nga koy wax ak yow nga di ko biiñ ku lay woo nga di ko jaay affaire te xam te lépp sëñ Tuubaa rek la sëñ Tuubaa dong fi ne kenn néew fi sëñ Bamba rek fi ne kon kon bég naa mbégte moo xam ne foo ko takk weesu na ko màggal Tuubaa ba ma bëggee ci yow émission danga ma koo jàppandalal teguma ca yenn saar te am na fi ñoo xam ne danga leen di invité muy jafe lool ci waxtaan dong ci màggalu Tuubaa di waxtaane sëñ Tuubaa koo ci woo may wañaar ne mag muy jàng mbege te yow buñ la woowee rek da ngay daal di disponible daal di joxe sa temps bépp ci waxtaani sëñ Touba kon loolu dina ko fésal ndax samay morom dañ fee taxawoon waxtaan ak moom ci euh, màggalu Touba mu yombalal ma ko dama naa ne ñu ko jëkk a tourné émission màggalu Touba ci laa bokk loolu dama la ci sant bu baax a baax te di la ci gërëm di ñaan lii nga xam nekk yàlla yàlla boo ci gis sa bopp lu la ci sëñ Touba defal yàlla na yokk ci barke sëñ Maxtaar Binta Lo nun de amuñu alal waaye ànd na na koo xam ne ñeme na noo taxaw fu ne taxaw fa ndax damaa jëlale sëñ Maxtaar Bintuloo waaye sëñ Mahmadan mii ma doon sant rek muy su waajuru sunu baay bu baax bii nga xam ne amuñu payam moom danaan jël baaramam ba teg ci dënnam ba ne Mahmudan man du ma ànd ak kuy dem sawara yàlla nan bokk yàlla nanu yàlla nanu bokk tënku ca baatam boobee sëriñ Mahmadan daan wax man Mahmudan du ma ànd ak jëmm juy dem sawara du ma ànd ak jëmm juy sawara kon jëmm joojee lan am ci moom yàlla nan ko bokk ak yéen ñi nga xam ne ay wëllëre ngeen sunu borom boole ñu ci barki barke Cheikhul dem sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp noonu laa sant Cheikh Makhtar borom daaru sama nijaay ji nga xam ne mook sama yaay bokk ndey ak baay mi ngi noonu départ jëm ngumba moo tax sànq mu wàcc noonu doon dem ak euh, maam Taalib yooyu Diop xalifa Cheikh na Cheikh Saad bu maam Cheikh na Cheikh Saad bu Diop ca ngumba géew sant naa ñëpp gërëm ñëpp bàyyiwuma kenn papa Cheikh Omar Lo mii di ko sant bu baax a baax moom maam Sarax Lo moom maam Njega yàlla muy wayjur ci man waaye yàlla boole ñu goo xamante ne bii may sama xel mu naata xoo na mu nëx mii moom mais mooma ciy dimbali lu ci baree bari fu sama émission egg moom moo ko fa yeggale ñu bokk na groupe boo xam ne fédération ndaam di sëti saamaan ibnu suufi yi ñun ñu askanoo ndaam mu di ca taxaw taxawaay bu am solo bañ na ko bañ dañ koo dàkkantale soldaaru maam ndaam isa papa Cheikh Omar maa ngi lay sant bu baax a baax a baax macha allah di ñaan yàlla kóllëre gi ak mbokk gi yàlla na ko yàlla yokk ko téyër di la gu ànd ak ngërëm ñeel jëm ci sunu bokki fédération ndaa mi ndax ci suba ba nëgë ne noppalu mu jamono ju nekk ñi ngi ñëw soxna Maguette Fall ak nii sama ginnaaw moom it sant naa ko baax a baax gërëm ko sëñ Mahmoudane Tall sama xarit sama wëllëre noonu moo sànq rek moom macha allah bañ na ko ba fu ma mës a na ma fa loolu nag kóllëre munu ko weesu alal boolewuñu waaye li nu boole dañ ko munta séddoo muy sëñ Maxtaar Bintaloo ak it bokk penc mi nga xam ne tabarfakal macha allah sëñ Gana yàlla na sa fan wi diw doj barki sëñ Basiru jërë ngeen jëf baal leen ma àq baal naa leen àq yéen ñëpp bég naa kontaan naa ñu jox sëñ Basiru mu ñaan rek ñu daal di yeewee ko daal di dugg ci biir jërëjëf alhamdulilah rabbil alamin rahman rahim maliki yawmi din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina bismillahi rahmaani rahim la sila ila rahman rahim al qudus sam mu'min amin asil jabbar mutakabbir khaliq al-bar al-musawwir ghafar al-qahhar wa barsaqun fatah al-alim qabid basil hafid rafi musil sami basir akram adu latif qabid alim asib ghafur shakur ali kabir asib mukhid asib jalil karim waqi mujib wa asian mujib mujib wa sayyid aqad wa qimati walil hamid musim mubdi muhi mutawil qayyum wajil waaye di samadu xaadir muxtaar bi muxadu maaxur aw law xur saahiru ba alwali mataale bortawa muntaxim afu rahmane maa kam so jilal wal ikram al muqsa jaam xaali mox ni maa ne daaru naaf nur haadi badi baaxil wa sir sir sabor sabor sabor bismillahi rahmani rahim allahu rahmani rahim malik qudus salaam mutaam ali bari musawir xafaar waaye di mooy si waxat am si xaybi musibani mox ne ali maa jilan xaafe du ay xali asi sayim seet awfna basit mutakabal muxtaar walu daar xaar fatal basir malik al mulk muqaddam azim mawdi aadi واجد باقي جامع آخر ما اسمه سائر حكم بديع وهاب والي أسم رقيب سكور رساق مير جليل وكيل وارث ولي حميد كريم ماخب كبير مخ كبير قوي سمر راف منتقم مسل أولاد سمر بقسم رشيد برو خني مجل سعبد بإياد مخ قلانا فتواب يرساق يعمل كليف تواب لي ليف تواب لي ليف تواب لي ورسقني ورسقني ورسقني ورسقني ورسقني ورسقني ورسقني